وصلي يلا Allah, sant yàlla Allah nga xam ne moo ñu digal te dige ci ay digalam waaye tere ñu ay safaan ba noppi tëkkoo ca loola moo tax borom xel yëpp buur nañ ci ndigalal yàlla ak tereem yalla nag ak ak man nek ci sayyiduna muhammad moom mi nga xamé mbolé ñi jindi ko jëm ci yalla ñepp moy ko ci gën yalla julli ak man nek ci mom moo ki ñoo ñam ak i ñi nga xamné ne dañoo tànn kërug alaaxira ga nga xamné ne kër dess la waye ginnawal kërug aduna gi nga xamné ne kër jeex la kër guy rap la yàlla julli ak man nek ci ñom ak mboolem ño xamne top nañ leen ci rafetal ba keroog bis bi nga xamne ci la suñu borom di fayante ak ay jaamam seen jëf mo xam jëf yu dijj la mo xam jëf yu sew mbokk yi tey liñ bëgg ci ben ayat alquran la ci lañ ko defoon ci àjjuma jee weesu aaya bi mu bëgg fàttalante moy li suñu borom wax ne wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum mu ne wax naa man seen borom man yàlla mi leen bind wax naa ne dee leen ma ñaan yéen samay jaam ci aajo àdduna ju ngeen mën a am mbaa lu ngeen ragal ci àdduna te bëgg ca mucc dee leen ma ñaan man yàlla mooy ud'uuni ndax astajib lakum buur laa boo xam ne nekkeewuma fi lenn ci ci ci ci ci jamono lu dul nangul samay jaam seeni ñaan kon nak de leen ma jàpp bu tekk ne inna ladina yastakbiruna an ibadatihi jahannam al-akhir ga yi nga xamne dañu reuy ci dima di seen soxla neena ñoo ñe sawara ci seen pay ñu jallu seen buñ ne dañuy waxtaane ñaan yalla solo si am ak dayo bi am nit ki mën na koo dégg mu woyof lool ci ay noppam waaye nag di rëy ndax loo xam ne yonent yi yàlla yónni ci kaw suuf ku ci mosaa jaaxle amoo benn jumtuwaay boo daa jëfandikoo bu dul ñaan yonent yàlla noox ba mu jaaxle ci ay noonam dafa jël boroomam sëpp ko ci digganteem ak ñoom fu mu toll di tàllal ay loxol yonent yàlla aadama ba mu suñu borom ca aljana ba yalla méré ko génné ko aljana indi ko fi ci ko suuf ñaan boromam motax boromam jigal ko yonent yalla ibrahim amna téméré téeméeri at door a taawu te dëkke ñaan ak dëkk toroxlu suufel bopam ak diis bopam diis boromam ay aajom motax mu am mu dem ba am téméré at doora taw sayidina musa ñaanako musal ci pexé firawna yonent yàlla Zakaria am na téeméeri at door a tawla ta ñaana ko may doom yonent yàlla Ayuba am na juróom-ñaari ati tawat yoo xam ne ñaana ko génn ca tawat joojee yonent yàlla Yuusuf ñaana ko génn ci biir bënd googee ay doom yi bàyyoon sànni woon mbokk yi ñaan malaaka yi nga xam ne yàlla togg lañ jëf sax ñaan lañ dëkki waaw rawatina jaamu yàlla bi nga xam ne moom dafa am lu mu ajowoo ci borom loo xam ne mënu ko ñàkk am lu mu ragal loo xam ne da caa bëgg a mucc kooko wërta jóg ci di tàll ay loxo boromam di ko dagaan ay soxlaam kon mbokk yi lu am solo la sayyiduna abu hurayra nee juróom a ngi nii yoo xam ne ku ko yàlla wërsëgale duñ la xañ juróom mukk mu ne man rusiqa man rusiqa xamsan lam yuxram xamsa koo xam ne yàlla wërsëgal na juróom nee na yàlla du la xañ juróom nee na koo xam ne yàlla daf laa wërsëgale ak cant ci sa xol nga xam ne lépp loola yàlla defal ci xéewal danga koy gis ba noppi di ci bit waaye di sant yàlla ci xéewal gi mu la xéewale nee na kooko ko xañ mukk ak dolleen mu ne suñ borom a ko garanti ndax moo wax ci alquran ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen may sant man yalla ci xewal yi ma leen di du ma dañ mukk ci di doli xewal yi ndax cant gu nek ak ndolle rek ci tew muy benn bi mu ne ko xamne yalla daf laa wërsëgale ak muñ ci nattu yi la sa borom di tek mo xam tawat la mo xam tolof tolof yi aduna mo xam am ndox la mo xam jangoro la mo xam ak ñak la sa borom tegle la ko nga muñ ko te xam ne moom mi la ko teg moo xam ni tax mu teg ko nee sa borom du la xañ mukk ab yool ndax yàllaa ko garanti moo ne innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab nee na man yàlla muñkat yi ëllëg yowmal xiyaam danaa leen yokkal seenub yool matale ko ful ko fay leen ko ba ñoom njiñ doon nattu ci àdduna sax doon nañ ngéeji ba ñu nekkee ci àdduna ñu amul ñu bañoon fa am benn jàmm ngir tiyaabu ju bari jëleen yàlla di fay ñetteel bi mu ne koo xam ne suñ borom wërsëgale na ko ab tuub ndax mbokk yi dëkke tuub wërsëg la am na kuy jëf bàkkaar koo xam ne du jëf bàkkaar ba bàkkaar ba rëy ciy bëtam saa su xëyee day yendu ci ay bakkar ba jant so te bu tëddee day fàtte lam defon ci ci lam defon ci bis bi lépp loolu mbokk ab la wërsëg moy sa so jëfee bakkar rek sa xel yedd la nga xamni li nga def jaaruwul ndax sa so la sa xel yedd rek nga dal ci tofal ak tuub motax mu nek ko xam suñ borom wërsëgal na ak tuub ngay dëkke tuub say bakkar neena yalla yàlla du la xañ ak nangu ndax tuub bu nek ak nangu rek mooy payam suñ borom moko ko ne wax wëlladi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaxfu an sayiat nee man yalla buur la bo xamne ne bu sabab jam def menteri reey ci man li jam bàkkaar ba Sabu reel réyal na ko saa bu jam bi reele bàkkaar bi rek bàkkaar ba tuuti ci man te bu ko jégaloo ma bal ko mbokk yi li tax mu mat di tuub cheikhul khadim nena dhunub turisul qasawa eh, kama mada wa tujibu shaqawa neena bakar bokk na ci mi jur moy day wol xol ndax sa so jëfee bakar def na tas ci sa xol sa so jëfee bakar def na tas ci sa xol bu bakar yi bare nak day dem ba tas tas yi mur sa xol bu xol bi muro leeru yalla du ci tabbi yermane yalla du ci tabbi su ko defé day dal dem ci khatamallahu ala qulubihim وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة te bu nit ki yeggee foofu alku na moo tax Cheikhul Khadim ne idil xunubu tuurisul xasaawa kama madaawa tuujibu saxaawa nee na bàkkaar yu bari day waral day wool day woowlu xol yemu ca waaye day jural nit ki ak texee di ndax xol boobu bu nekk texee di rek ca topp yemu ca waaye su ma taxul bainahu wa baina asbab rahmatin wuqina hina neena bakkar bàkkaar yu bari fay jural nit ki digganteem ak yermande yalla dok te lañ ci yàlla musal ta ko xamne sa sa ak sa borom yermande ci ci doxon dog na mooy merum yalla tàbbi ci sa kaw ta ku meram yalla ne ci yow fu musiba jóge rek yow lay set te lañ ci musal kon bi ko ñeexal neena ko xamne suñ borom wërsëgale na ngay jéggulu nga taxo istighfar ci salamiñ neena nee suñ borom dula dula du xaj mukk ak jéggal ndax mo wax ci alquran ne istaxfiru rabbakum innahu kana ghaffara deelen ma jéggulu man yalla seeni bakkar ak nu bàkkaar yi mën ndax bur la bo xamne bur bi jéggal la ta dama sawar ci jéggal sama jàpp seen mu ne ko xamne suñu suñ borom wërsëgale na la ngay taxoo ñaan abadan fo tollu aaju jo am nga xamne sa aaju ji nga am kenn amu ci katan kudul yalla lepp lo ragal ci aduna nga xamne kenn mënu la ci musal kudul yalla ngay talal sa borom say loxo di ko ñaan say aaju ak di musu ci li ragal ci li nga ragal neena sa borom dula xañ mukk ak nang ndax mo wax ci alquran ni ud'uuni astajib lakum ma ñaan yeen sama jamm ndax goor la bo xamni lepp lu ngeen ma ñaan man nangu kon bokk yi ya? ab ab ab ab jam dafa war di takko di tal ay loxo borom fu mu toll du ko gis ay ajum te du ko mus mbokk yi bokk iya, na ci njariñal ñaan yonent yàlla muhammad neena ad adduhaa huwa al ibada neena ñaan ci bopam ak jaamu yalla ya la neena ñaan jaamu yalla ya la ndax jam bi nga xamne dafa am soxla te soxla si yaakaaru ci kenn ku dul boromam mu tok talal ko ay loxom di dis a jom jëf goge rek jamu yalla la buñu la maye la nga don ñaan dañ la fay yu bu la mayut la nga don ñaan dañ la fay yu ndax ñaan bi ci bopam jamu yalla la motax cheikhul ne minhu li'ab minhu li'abudiyatin ay izhaari faqni izhaari faqrin watanaaji yaa uqay nee na toog tàllal sa loxo say borom dafay tegtale nangu njaam ci yow min hu duaw li ubudiyati suñ borom jaam bi mu gën a bëgg ci ay jaamam mooy jaam boo xam ne dafa am soxlaam julli ba noppi mbaa mu jàng alquran ba noppi mbaa def ay salaatu ala nabi ba noppi mbaa mu def genn jaamu yàlla ba noppi toog tàllal ay loxom boromam di ko ñaan ay ajoom jaam boobee bu ko suñ borom dee xool day bég ci moom ndax day yëg moom yàlla ne jaam bii kat doyloowul kenn ku dul ku dul buur di ko bind su ko defee suñ borom bu dee xool jaam boobee day bég ci tàll gi mu tàll ay loxom di ko ñaan mbokk yi ñaan da ngay xool ne ñun bu ñu demee màkk bu demee ba màkk mboolem masaari yañu fay taxaw yépp ñaan lañu fay sant bo dé wër kaaba gi dañ na la gaawal nga ñaan say soxla ndax bérébu ñaan la li nga muslu ragal li nga la nga ragal muslu ci ndax bérébu muslu la bo dé dox safa ak marwa ñu na la gaawal nga ñaan say soxla ndax bérébu ñaan la dé demee sam-sam bo la nga naan ñu na la gaawal ñaan say soxla ndax ndoxum sam-sam kat boko dé naan lo ñaan sa borom may la ko bo fu jógee boo demee musdalifa ñu na la gaawal ñaan say soxla bérébu ñaan la ndak démé muna ñu na la gaawal ñaan say soxla ndax ñaan la bo demé arafa ja yu arafa bis bépp julli lo wuñ la def lo wuñ dara dañ na la rek del di sa borom say soxlu te diko musu ci ragal kon li yonati yalla muhammad ne abduha wa ibada ñaan ci bopam ndeke moy ak jabu yalla mbokk yi bokk na ci njariñal ñaan yalla yonati yalla muhammad nee abduha muqul ibada nee ñaan yalla moy sekret jaamu yalla mbokk yi mbaa xam ngeen gépp julli gu nit julli ba noppi mbaa genn jaamu yàlla boo xam ne def nga ko ba noppi na bërëb jóg dem te ñaanoo yàlla yàlla mere na la mbaa xam ngeen loolu ndax waxtu wi ngay jàng alquran mbaa nga mbaa nga taxaw di julli mbaa ngay sikar mbaa ngay def ay salaatu ala nabi mbaa ngay def genn yàlla genn jaamu yàlla sa borom a ngi jàkkaarloog yow ubbi la buntu bi yërmaaneem toog di la xool ana lu muy xaar ci yow moy nga noppi ci jaamu yalla googu ngay def talal ko say loxo dis ko say aju bo jaamu yalla bu noppi nak jog ni bëri dem ta ñaanu sa borom sa borom meral bi bari yar man yërmande mo ne sa mum jaam mu meena don mana de boko ko ñooxoo mu daw la am dit ko ñooxu borom daraje aduna ju meena don mo xam alal la ko yalla may mo xam ab jiddu la ko yalla may mo xam eh, ah, eh, xam-xam la ko yalla may bo dawe di ko ñooxu mu daw yàlla dong mooy buur boo xam ne boo ab jaamam riiree wuti ko mu riir ma mu daje jeg moom waaye doomu aadama joo jóg wuti ko mu daw la ko waral moom lim yor day yeex te xam na ne boo ñëwee daa koo ci laaj moo tax boo ko ñëw mu daw la borom bi tabaraka wa taala nag lim yor moom darul jeex te moom doyewu ko dara darul jox ko ay jaamam moo tax saa su jaam bi jógee bu seqee benn jéego wuti yàlla suñ borom dëgg ay tànk wuti wuti wutali jaam bu jambi bi cale wuti ko suñ borom xel wuti ko waaw kon bu jambi bi wuti yalla mom nu suñ borom di def boobaa wax kon yoonu yalla muhammad neena ñaan moy yokku jamu yalla mbokk yi bokk na ci njariñal ñaan yoonu yalla muhammad sallallahu alaihi alayhi neena ab jam bu ñaané yalla neena ben li ñaan suñ borom jox ko ko fi ci aduna mbaa mu jox ko ko alaxira mbaa mu jéggale ko ko ay bakkaaram mooy maa muslimin yadu bi duain ilastujiba la amul benn jàmm boo xam ne dana ñaan yàlla dul na suñu borom nangul ñaan fa imma an yuajjila lahu fi dunya wa imma an yudaqira lahu fi laaxira benn li nga ñaan ñu may la ko fii ci àdduna nga jariñoo ko mbaa suñ borom xam ni nga ko ñaan kat bu la ko mayee doo ko jariñoo wala bu la ko mën na la jural am mbugal mu dencal ko ba ëlëk mu fay la ñaan googe wa imma ay yukaffira anhu min dhunubi wala bok nga ñaan ba nak suñ borom xamne ñaan gi kat bu la ko maye do ko jariñoo te ya ngeeg bàkkaar yoo xam ne boo ko faatuwaale dana lor suñ borom jël ñaan nga la ko say bàkkaar motax jaamu bi yalla bu dee ñaan te limi ñaan gisuko bu mu tax mu yokkat bu mu tax mu tayel na xamne sa so talale say loxo rek ñaan sa borom yalla nangul nalo waye comme bour la bo xamne dafa xam mbiri jambi te jambi xamul ay mbiri bopam mom dafa xam li gën ci yow te boko ñaané ba nopi li gën ci yow rek la lay defal motax yow foo del ñaan rek ben li nga ñaan bu xamé ne gën na ci yow dana la ko jox fi ci kaw suuf bala ngay génn bu xamé ne gënul ci yow la gën ci yow dana la ko dencel ba ëlëk yow mat xiyam bu xamé ne gënul ci yow mën na la ko dencel ba ëlëk yow xiyam wala bok mu jéggalé la ko say bakkar te mbokk yu lu ci nek rek baxna kon jàng dafa wara farlu ci jamm ñaan mbokk yi bokk na ci njariñal ñaan ci li ñuy tëje inshallah yonent yàlla muhammad nee na salawatullahi wasalaamu alayhi ëllëg yowmal xiyaam jaamu bi yàlla dana ñëw ci karam yàlla tabaraka wa taala suñ borom gaaral ko ñaan yim doon ñaan ci àdduna te gisu ko woon ñu teg ko ci kanamam ne ko suñ borom ne ko yaa abdi daxawta nii yowma kada wa kaza fa amsaktu aleyk daawatik ba nga nekkee ci àdduna daa nga ma ñaan nangam daa nga ma ñaan nangam daa nga ma ñaan nangam limal ko mboolem lam daa ñaan boroomam lépp daa ne ko nag boo gisee ma téye woon ko mayuma la woon li nga doon ñaan dama la doon xaare tey fa hada sawaabu makkaana dhalika dua tiyaabo ji suñ borom jóoral ko ci ay tiyaabo loo xam ne day xool ba fa bëtam yam bu xam fa fa tiyaabo yam suñ borom jóoral ko ne ko ñaan ñi nga ma daa ñaan ci aduna te gisoo ko woon dama la ko dencaloon ba tey rasulullah neena bu keroogee jamba dana bëgg mbégte mo Daneng ne dana ngéeje won lam ñaanon yalla ci aduna lepp ñu ban ko ca nangul dara ndax yiwu bari ba nga xam mom la ko suñu borom di fay kon kenn ku ci nekk ci ñun da japp na sa su talale loxo ay boromam ne ko allahumma wala mu ne ko ya rabbi ta limi ñaan gisu ko ci aduna ëlëk yowmal mal ñaan goge mu doon ñaan dana ko jural tiyabo jo xam buñ ko ko dee fay dana ngéeje won ba muy dund lam ñaanon yalla lepp suñu borom bañ ko ca may dara te dencaloon ko ko batay ta mbokk mba xam ngeen ne taraangi aduna li muy neex neex ci xol ju ëllëg ko dàq ndax jiikat lu mu bari bari bis day ñëw nga bàyyi ko fi dem mba bis ñëw suñ borom ba la ko dénkoon jëlawaat ko ci say loxo waaye la yàlla di joxe ëllëg nag moom saa su tàbbee ci say loxo jeex na dootu génn mukk waaye nag ñaan moomu dafa am ay teggin mooy jaam bi ñaan yàlla na fexe bay dunde alal ji daw ndax dana gaaw lool ci nangul ak ñaanam benn sahabi bu ñuy wax sahabi ibnu abi waqas dafa ñew ci yaronte yalla muhammad ne ko ya rasulullah adu allah fala yastajib li damay ñaan yalla fuma tollu te limay ñaan suñu borom duko nam yaronte yalla muhammad ne ko ya saad ijjitani bil haram ijjitani bil haram. del moytu lu haram ndax fa inna kulla batnin daxa fihi luhmatun min haram, la yustajaabu du'a'uhu 40 yowma bepp biir bo xamne boroomam tàbbal na ci benn tibb ci aw ñam wu ñeen fukki fan dana ko am yoo xam ne bu jaamoo yàlla yàlla du nangu jaamu ko te yàlla nanguwul sa jaamu du nangu ñaan kon daal sarti daf caa bokk mooy jaam na fexe bay dunde alal ji lew ndax daf koy dimbali ci saa su tàllale boroomam loxo rek suñ boroom ne boobu nangul naa sa ñaan yàlla yàlla nangul suñu ñaan mboolem ñu bëgg ci àdduna lépp yàlla ñu ko yàlla jàpp ndaloon te defal ñu mu gën ci ñun waaye mboolem lu ñu ragal ci àdduna lépp yàlla ñu ko yàlla dàqal te jañal ñu ko te sori ñu ko bépp jaam bu yore lor ne daf koy jëme ci ñun yàlla yàlla dox suñu digganteeg jaam boobee te delloo lor joojee ci moom yaxfiru lahu lii wa lakum wa li saa'iril muslimiin